maanaam vision. Mhm. ak discours. Mhm. ak détermination moom laay wax patriotisme. Mhm. ak parcours. yooyu bu dajee ci jenn jëmm loolu yàllaa koy préparé ci nit rek. mais loolu du ko judd am ko du ko ko bëgg am ko. yooyu yëpp nag macha allah yàlla na yokk yàlla da ko dajale ci jëmmam. macha ba noppi nag maanaam léeg-léeg nga yor mbir di ko jaay mais di ko jaay fuñ ko soxlaawut. fuñ ko soxlaawut. comprendre nga. maanaam man ngaa yor euh, bandu musique bu dàq. mais boo demee ci ñoo am dëj leen ko jaay duñ ko déglu. <laughs> duñ ko déglu duñ la fa. Hmm? voilà fekk sax. voilà boo yoree euh, galaas gu sedd guy du koo jaay. Hmm. dem foo xam ne ñëpp a nga sàngu euh, ndax di dee ko sedd nga ne leen kaay ma jaay leen galaas du jar. mais bu la yàlla di million nga dem fo tàng jir nga jaay leen galaas mu jar. waaw voilà dis kon nag maanaam ni mel ak lim xam da koo jaay fu mu jare hmm. mooy xalaat. doxalin yoo xam ne buñ ko defee dañuy génn ci pauvreté. Uh-huh. jëm ci lépp luy doxal am réew ñun dañoo am problème mu justice. Uh-huh. ñu soxla nit ku maandu ku ñu génnee ci jafe-jafe yi jaayante doole geeg ñu ëpp ñu am alal. Uh-huh. toog ci ñi kaw ñu amut. ku am alal sax bu la suuf nax la boo demee pelante ko day am fu muy jaar rek mu jeex. mu jeex euh, gis nañ léegi bi mu toogee ay milliardaires. ñu ngi dem kaso. parce que tooñ. xëy na sax ki tooñ mën naa am moom amul milliard wala bu ñu arriéraatoon six mois ci ginnaaw ku la waxoon Doro Gaye mën naa dugg kaso doo ko gëm ndax doon na dëkk ci lu koy dugal kaso te du fa dugg du fa dugg ñu soxla woon ko indi équité ci penc mi loolu yaakaar naa ne bu doon tane huit mois rek lañ lañ lañ lañ lañ natt bilan euh, tey ko xam ne Xaadim Ba Lob Afrique defe naa ne xam nga ko ci ay milliards ak lii alors léegi mi ngi noonu dem na prison fekkee fekkee ñun suñuy kaso maanaam ab boroom alal du ci dem boroomu tur du ci dem mhm. juge du ci dem avocat du ci dem magistrat du ci dem hmm? waykat bu siiw doo ca dem maanaam léegi justice bi pour lan la pour doomi baadoole yi ak ñi néew doole ñu leen di gën a jàpp di leen tëj mhm. duñ am sax luñ faye avocat ah politiciens yi di détourné kees yi buñ paree waxtaanee ko seen biir mu jeex loolu mhm. moo doon dox Sénégal ñu soxla buur bu maandu Ah. mu ñëw àtte nit ñi ci dëgg bañ a jaay kenn doole ah. yàlla indi sonko nit ñi ah. natt maandoom mu doy leen ñu am soxla soxla woo xiif lekk mar naan feebar faj parce que ñun xii lekkuñu ñi ngi lekk mais lekkuñu ñi ngi naan mais naanuñu ñi ngi faju waaye faju ñi ngi tukki di jaar ci ay tali mais li ñuy jaar du ay tali sénégalais mooy koo xam ne boo jëlee wàllum lekk maanaam talagul ci xool li baax ak li baaxul moom na lekk rek taxaw tuut du lekk. Ah. moo tax lii vitamine laak lii da lay indil ay léeg nang loolu daanaka yoonam nekku ci. sénégalais mooy koo xam ne li muy fajoo garab gi dafa cher. Mhm. dafa maanaam dafa am ay effets secondaires nangam nangam médecin yi xa baaxul wala hôpital bi amul norme yu normal. Mhm. yooyu yëpp sa yoon nekku ci. Mhm. yow presque fajuwoo moo tax loo am jël. loo am jël moo tax daanaka fajuwoo. aw yoon wala norme oto yi. ab da ngay gis boo xam ne moom ak sa baay yow. Mm, nga dugg ci tukki. <laughs> waaw gis tëli boo xam ne sëñ bi daanaka maanaam du tëli. foo ne uh, gan ma nga pax pax yi nga xam ne tëli bi rek boo ci dawee ni nga war a dawee mu daaneel sa oto. te teewut ci ngay jaar di tukki. Mm. maam ñun amuñu dara lu normal. te yàlla seetaanuñu ci dara. Mm. mais nit ñu maandu ci alal. lañ amutoon. maanaam nga xam ne li am liñ am dina ko jël delloowaat ko suñ jëm. suñu amee koo xam ne. mën nañoo hmm. xaw a dëgër fit ci ne ah hmm. moom kat nit la koo xam ne hmm. euh, maanaam maanu na du sàcc du jël ger du geraate kooku boo ko gisee doo ko gëmee doo alors yàlla defit maanaam mu am discours boo xam ne mën naa wax ak doomi Sénégal yi yëpp ñu déglu ko ñu déglu ko ci ni ko yàlla bindee ci jëmm ak ci xalaat ak ci gisin maanaam yooyu yëpp nit dafa yomb maanaam mu tiire attention wu doomu aadama yi mën leen a dajale ci ñu bëgg waaw su loolu jàllee tamit yàlla may ko patriotisme loolu lépp nit mënoon na koo am ba noppi mm-hmm. daan nag du ci naree dee bàyyi ko su ma ci naree am dégg saaga bàyyi ko mm-hmm. suñ ma ci naree yàpp ma bàyyi ko su yombul ma bàyyi ko su yóbbu xoolu ko nar na cee dee bàyyiwu ko mm-hmm. dégg na ci saaga bàyyiwu ko perte na ci liggéeyam bàyyiwu ko dem na ba xam ne sax moom ni mu ko bëggee woon munu ko ne ame mu dem jël jomaay teg ko fi li sénégalais yu bëri seetluwut mooy bi soo ko nekkee ci kaso bi wax ne def leen grève de la faim ñëpp def grève de la faim. jaar na ci suuf jomaay mi nga xam ne jàppoon na ni kii mooy nekk sama candidat mooy mottali projet bi. moom daf ko waxoon ne ko bul def grève. bu ko def. boo xoolee patriote yi nekkoon ci prison bi fa Fadilou Keita. nit dof. Hannibal ñëpp a grève. Bilal jaata tout le monde. chef Diomaye. chef parce que xamoon na ne moom mooy nekk bientôt président de la république te président soxlawul muy am ay maladie. kooku mooy Ousmane sonk moom mu dem def grève de la faim 34 jours ne jomaa yow de bu añ jotee reeral. parce que da ngaa a doon président. kooku mooy président Ousmane Sonko loolu moo tax. Hmm. sénégalais yi bëgg ko. Hmm. mbëggeelu nit ñooñu nag. Hmm. maanaam dafa dafa dafa wuute wut ak liñ bëggoon rek muy yàlla ak yonent bi ak sëriñ si. ndax dëgg yëpp genn dëgg la. genn dëgg fi ne ndox yëpp men ndox la rek. waaw dëgg yëpp benn dëgg la nañ am ay wuute waaye bu fekkee ci ñi koy wax ak jamono bi muy ñëw. Uh-huh. waaye dëgg yëpp moom benn dëgg la fii ne Sonko li muy wax boo tijjee alxuraan danga ko fay fekk ko fay fekk uh-huh. léegi nag nit daa xas ba bëgg dëgg uh-huh. wóolu dëgg gëm saa bu déggee dëgg rek même bu même bu ko bëggut a nangu sax da koy nangu da koy nangu moo taxoon ngay gis yéefar yi daan wax bu leen déglu yonante bi bu ngeen ko dégloo mu yay leen bu ko déglu rek gëm daa yor njabar ci boo waxee nit ñi gëm ko Sonko tamit li muy wax maanaam bari waa na ñoo xëy na nga koy fenatal bañ koo déglu jàppee ko maanaam weddi ko avant nga koy déglu mm-hmm. mais soo ko dégloo ak xel mu ak ak xol bu set mm-hmm. maanaam ci maandu te déglu ko rek te yàlla tax di nga xam ne kii mm-hmm. lii muy wax moo dëgg la dëgg la léegi nag dëgg yëpp dañoo lëkkaloo nekk gën dëgg rek macha allah voilà loolu euh, mu ngi mel ne courant bii rek maanaam euh, compteur bi mooy taal lampe néeg bi mooy taal lampe douche bi mooy taal climatiseur bi mooy taal lépp maanaam euh, poto lampe bee ma ko jox compteur bi Hmm. potu lampe bi poste bee ko ko jox poste bi central ba ci Senelec ko jox kon courant da day dajolowaat nekk benn courant dëgg yëpp gën dëgg la rek loolu la hmm. léegi nag nit ñi ba bëgg nag bëgg nañ hmm. voilà mooy waral loolaal rek ñu daw jëm ca ñu daw jëm waaw la rek buñ la bañeet kasaalika waaw da nga yor sax loo xam ne lu baax la bañ giñ la bañ a tax loola mel na lu bon te fekk lu baax la mas eh, jërë ngeen jëf ba léegi mbokk yi seetaan Tektal TV bu baax a baax président Ousmane Sonko daal nitu ñëpp la ku bëgg lu baax rek dina ko bëgg ku bëgg ku bañ lu baax nag du ko bëgg te ku ko bëgg sa jàmm dina néew ku ko bëgg ku ko bañ sa jàmm dina néew ku ko bëgg sa jàmm dina law ndax li yàlla bëgg moom faw mooy am kon nan rafetal bu baax a baax te yéene ko jàmm te xam ne ñi ko yéenewul jàmm ñu ci bari ñi ngi koy gis ñi yàq deram seen dera ngi yàqu ñi koy jéem a bëgg lu ko toroxal ñoom ñoo ngi torox di dugal seen bopp bu baax a baax kon Sonko ku mot moytu la Cheikh Bara Sonko gis mu tudd mill milliards mu mel ne événement daal euh, loolu boo amoon loo ci doon xalaat ñi nga xam na que day ñun lu mu wax gëm nañ ko am ñuy xel ñaar ay waxam ba bu waxee leen rek ñun dañuy jë dañuy dañuy dañ ci ñaaw ba pare ëllëg ñu jëlub jël. waaw mille milliards de. ci euh, xam nga dafa am benn seetlu bu ma ci def muy Macky sàll moom. Mhm. génn na wax ci. waaw ni Macky Sall waxee woon nag. waaw. maanaam booy seetlu ñi njëkk a wax ñëpp loolu la ñu waxoon kan day mel ne moo leen doon wax loo. moo leen doon wax loo. parce que façon bi ko jom bugaan analyser. Mhm. ak façon bi ko presse bi ñu bëri analyser. façon mhm. boobu la Macky Sall ñëw topp ci. topp ci mooy que Sénégal. Mhm. compte banque bu mën a def trente milliards amu fi. yow moo sax amu fi. alors euh, te ki doon wax est ce que moom dafa préciser ne Sénégal la. wala préciser wul ne Sénégal dana gis na loolu la wax ko hmm. gis nañ compte bu am un milliard mille milliards léegi man li ma jàpp mooy président Macky Sall moom dañ ne ku moom xar mi mu bàyyi buum ki parce que jàpp naa ne hmm. compte bu am mille milliards moom lan moo ci yoonam daal ba mi ñoo naan mën na nekk ak mënta nekk hmm. ak di ko jéem a bëgg dëkkal Sénégal pour bañ bëgg ko weddi parce que ñu koy weddi weddi wuñ ko dañ koy dëkkal Sénégal ba pare doo ko weddi dégg nga te yaakaar naa ne loolu sax Euh, naa ci bañ a taxaw lu yàgg. Mhm. mais lu mën a nekk la sax même ñi wax naan trente milliards. waaw euh, rek moo mën a nekk ci compte ñoom tamit loolu sax ay tappale képp la. ay mhm. euh, parce que tey. Mhm. suñu jëlee président africain yi fi nekkoon. bu butu. man damaa jàpp ne da maanaam daqota sàcc Macky sàll gënu ko bon. <laughs> man loolu laa gëm. mbubutu bu ko joxoon Sénégal gii ni fi Macky Sall nekkee woon. mbubutu ñemewu ñemewu te ko joxoon Macky sayir mu defalu fa lu raw li fa mbubbatu doon def. Mhm. kon dàq koo sàcc gënu koo bon. Mhm, te mbubbatu bàyyi na onze mille milliards. Mhm. ci compte bi noos na ba dee bàyyi onze mille milliards. onze mille milliards. Omar Bongo. gën ta bon Macky dàq koo sàcc. bàyyi na quatre mille milliards. quatre mille milliards waaw. Euh, Abasa bu bu bu bu bu Nigeria. Uh-huh. bu yàggul rek gars yi dem nañ euh, fexe na maanaam euh, Bukhari fexe na ba nangu un mille milliards yenn yi sax. parce que uh-huh. bàyyi na lu mat trois mille milliards. Uh-huh. yoo xam ne mi ngi ci tubaab yi. boo jëlee ko mel ne euh, nu mu tuddati sax bàyyi Gnassingbé Eyadema. bàyyi na lu mat mille milliards. Omar Bongo bàyyi na lu mat sept mille milliards. Hmm. dégg nga. Hmm. mille milliards deux milliards d'euros dong la. Hmm. dégg nga bëriwul deux milliards d'euros la. deux milliards loolu président africain Ben Ali. Ben Ali defe naa ne bàyyi na ci compte banque am lu ëpp cinq mille milliards. jàppe nañ ko ko. léegi ñooñu dañoo dàq sàcc Macky Sall wala Macky moo leen dàq sàcc man li ma gëm mooy moo leen dàq sàcc. Macky moo leen dàq sàcc li ma gëm mooy moo leen gën a riche Mm-hmm. Macky Sall moo gën a riche ci Afrique actuellement. actuellement oui. ok moom lu tax amu fa. léegi nag mm. kon bu taxawee ñi ñuy gëmloo ay mille milliards chef d'État africain yi sàcc mille milliards ñaata la toll. Mm. suñu waxee ne Macky Sall bokku ci. ñun loolu mooy information ci ñun. Mm. mais Macky Sall ci la bokk. Ah. kooku du information te gëm naa ne la plupart sénégalais ñi ngi xaar maanaam ñu ne leen Macky Sall yor na dix mille milliards. man li ma gis Macky Sall ñu ne lii Macky Sall sàcc na. Mhm. ba ci affaire gii. waaw man xam naa ci milliards yoo xam ne ci dafa ci moom la jëm. ci moom loo xam ne commission la ci mom la jëm. Mhm. avance biñ génne. ma maanaam Macky Sall niiw ni fii. Mhm. milliards buñ sàcc te gisoo ci loxoom. ok moom fàtte nañu toppe nañu mbooloo léegi nag milliards yooyu mu doon sàcc. Euh, gis nga bi mu toogee am na koo xamante ne daf bi muy toog. maanaam ministre de jërul ma koy tudd nag parce que dafa nekk ci élection du ma ko tudd sax di ko yàqal. du ko yàqal mais dara sax dinaa ko tudd beneen yoon. waaw benn benn ancien ministre Wade Macky Sall la mi ngi ci liste yi nag. Hmm, dëkkul côté Thiès. mi ngi ci liste yi non non bàyyi rek. mi ngi ci liste yi. Uh-huh. bëgg a nekk député. waaw bi Macky Ablaye Wade yi fa daanu. Hmm. Macky Sall fal falu ko fekk ci benn ministère su ma tuddee ministère bi rek dañ koy xam booba nekkagul ministre. waaw uh-huh. jamonoy Wade mu am benn virement bu jóge woon ci réewu arab yi. Hmm. nekk douze milliards. douze milliards. dégg nga farwaat daanu. Euh. bi Macky Sall toogee mu gis ko wax ko ko douze milliards yi wax ko ni mu demee. Hmm. dafa xaajoog Macky Sall milliards yi. jël xaaj bi jox Macky xaaj bi. Macky jël. oui Macky Sall noonu la mel. jël man xam naa xam naa nit ku ma xam. Hmm. nit ku ma xam. koo xam ne dafa amoon marché. waaw euh. bu moroon a liggéey ak Amérique ay américain mu mm-hmm. toogee ak Macky Sall billaahi wallaahi tallaahi laala xam nga dafa am yoo xam sax koy dégg ci télé yeeg rajo yi mais ma lay wax man nit laa xam yow sax mm-hmm. xam nga ko waaw sama fii lay dëkk daanaka rek mm-hmm. dafa toog ak Macky Sall fii mel moos wax ko marché bi ba pare Macky Sall ne ko boo ma ci joxee commission sàngam ma signé ko ma signé ko commission ñun kon xam nga kon xam nga man weren teew ma ne moom da doon def loolu. da doon léegi kooku def na ko ko. ñaata maanaam 12 ans yi fi nekk yëpp bu dee lu waay yëkkati commission kooku loolu ñaata milliard la te man xam naa ne Macky Sall. am na hmm. société marbre. Hmm. yuy jógee Algérie di ñëw fii. di ay marbre yu ñuy jaay fii nga xam ne moo ko daan eh, importé di ko dugal fii di ko jaay te moom hmm. moom moom société boobu. ili koña demal xool fu siis ba nekk ma nga Marrakech. te moom Marrakech ay ay hélico yii di jël nit ñi di yóbbu ca euh, kii ba nu mu tuddati ca pétrole baa indi. waaw Macky Sall bu ca bu ko moomutit actionnaire majoritaire la. Ah. dégg nga dafa tiimoon réew mi di sàcc nu mu ko neexee. di laaj commission. Mm-hmm. di jël suuf di jaay dégg xam naa itam beneen naar. boo xam ne naarub libaane la. waaw ku xam. Mm. jëf ren Macky jaay na ko terrain fii ci. Euh, Euh, Cap Manuel. Ah. deux milliards. deux milliards. billaahi wallaahi tallaahi. dama ko xam. xam damaa xam nit ki. Hmm. maanaam maki jaay nit ki terrain bi. jaay li ma lay wax ni ci côté. te boobu président la. waaye li lay wax ni di deux mille dee deux. deux mille vingt deux la ko jaay terrain bi deux milliards. Farba Ngom a nekkoon ci diggante bi ci diggante jaay bi. Hmm. kon kon man ah. li ma lay wax ni man rek. Ah. man rek loolu la xam <laughs> man xam naa nit nit kat jóge ci jóge fii dem ca Macky Sall toog ak moom mu ne ko mën naa marché bi waaye commission bi nangam la hmm. commission bi temps la nga xam ne kenn waxuma man damaa xam nit nit ka dem def mu wax ak moom mu dégg hmm. amul dem ak leeg fekkale xam naa nit Macky jaay ko terrain deux milliards hmm. kon kooku boo doon à peu près moom yow li nga ko xamal li ma ko xamal ci luubal xanaa man war naa jege mille milliards man man dong oh, te man jegewu ko woon bokkuma ci instafam day am maanaam man yi rëcci laay yëg yi rëcc waaw yi rëcc waaw yi yi nga xam ne daa rëcci rek léeg-léeg am bu rëcc rek nga yëg ko <laughs> kon Macky Sall buñ na laa yor na mille milliards lool loolu loolu loolu sax mm. voilà man kii damaa defee ne sax ñoom farba mii ko ci nekk yàggeeg mille mm-hmm. <laughs> loolu laa gëm